bokki jullit yi bokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaar ci bis bu tedd bu màgg bi ñu nekk ci di ko màggalal sëñ fàllu fii ci kër gi mu mel ni kii ñu jàkkaar lool di ab du Dieng mi nga xamante ni ab Abdou Dieng ndongo mi nga xam ni moo nekkoon ci kër sëñ fàllu ci ay jamono daan yëkkati xasaayid bu sëriñ bi fatoo bu sëriñ bi fatoo ci gan ginnaaw gee ba mu guddi lool ñu doon sàkku nag mu yëkkatul ñu ay bayit rek ngir ñu ubbi jataay bi bi ma yasrau lasaanaxat fa jaa bi jaay afdali man lilahi xaat la jaa rabbi bi ma yasrau lillahi xalaja ginnaaw bi ñu nuyoo tey sant sant yàlla di julli ci Yonent bi salama te feddal suñu pas pas ci Sëriñ Tuubaa ak suñu yaakaar ci Cheikh Mahamadul Fadal jataay bii ñu teewe nii ci ci kilifte foog jataay bi sëriñ Mbàkke mbakke mu sëñ Mbàkke Saloum ak sëñ Maam Thierno Mbàkke mu sëñ Saloum ak sëñ Cheikh Jooreel Mbàkke mu sëñ Cheikh Thioro bokk ci euh, euh, euh, sang yi nga xaye ñoo jaayoon seenu njureel na ko sëñ Fallou jaaye woon sëriñ Touba àndoon ak dongo yi ci tërbiye gi doomam sëñ Cheikh Diorel yàlla dogal daayira bi nga xam ne mooy daayira tërbiye yi biñ ko sosee ba dox ab diir sos daayira doomi dongo yi ñu def ko muy président d'honneur bi sëñ Abdou Samad Diop di président bi di daayira boo xay bi dara taxu ko jóg lu dul sant ak fedd li ak taalibe ak fàttaliku jataay ya nga xam ne moom la Serigne Fallou daan def ak noonu ba ca mujjoon tam defe woon ko tubaab ko fukki fan ak ñett ci rakki gàmmu yàlla dogal wa waxtaan wa ku ñuy wax Saliou Fall euh, nekkoon daal di ndindi kanji bindoon ko date woon ko bi yàlla dogalee ñu sos daayira dongo yi nag ba yàlla dogal ñiy wut bis xel dem ci ne bu ñu xamoon ne bis bi sëñ mujj sëñ Fallou mu ca def ak ñun jataay yàlla dogal ku ñuy wax alaaj njool jaañ dencoon mbind mooma bi mu ko génnee nag lañ ko won Cheikh Moussa Falilou mi fi nekkoon di jëwriñu Serigne Falilou mu jàng ko wax ne bii bis sëñ Falilou leen ko dencaloon dee leen ko màggal te am ci fulla ne nag ba ngeen ko xalaatee rek ci man ngeen waroon a njëkk a ñëw ndax sëñ Falilou ma woon ma toog ngeen toog mu ne ñii boole naa la ñoom ngay seen jëwriñ su ma la gisee naa leen gis su ma leen gisee naa la gis mu jëfe ko ca na ko jëfe daa ko ànd ak carnet ba nga xam ne moom la yor ak keroog moo bind ci loxoom turu boppam yëkkati ñaar fukki junni joxe juróom-ñaar ña àndoon alaaji sëriñ Samb cala ak Ndiol Diagne alaaji Mbay Singaate sëñ Cheikh Ndindi Ndiaye sëñ Samb juróom-ñaar la ñu woon damaa fekkawut jotaay ba waaye moo bind seenu tur yëkkatiwaat ku ne ñaari junni joxe la muy fukki junni ak ñeent rëdd wëndeel ko mi ngi ci carnet yi ba léegi daa ko yendoog nun fii ñu yendoo durus alxuraan addiyal ko sëriñ Falilou def ay bernde di ko ànd ak njaboot sëñ Falilou gépp Alaaji Baara mi ko wuuti daa ko doxee ak noonu bu masaa teew ak ñun ci mbaar mii ci jumaa ji ñaari baat lay wax ni yéen amuñu luñ leen di wax joxaañ jumaa ji ni yéen seen jëf a ngi mu mel ne ko la sëñ Fallu waxoon ne li ngeen di liggéey daañu leen ko laqal fa yàq yëgul ba fa mu amee njariñ muy ëllëg du maxe du xomaat kon kuñ joxoon jumaa ji ni la sa jëf a war nga xamee ne jumaa ji du ràpp du maxe du xomaat ñuy sant sant ga ñuy sant yàlla nag ca loola moo waral bis bii ñi ngi ko sant ñëpp di gërëm ñëpp. waaw soññe bi de mooy ñu góor góorgóorlu bu baax a baax rek ndax futti na ne ci daara ja suñu suñuy suñuy bàyyi defaloon nañ ñu ko kon nag ñun li ci des mooy bàyyee nañ ñu suñu bopp ñuy xëy ci atelier di xëy ci tool di xëy fu nu soob kon nag wërsëg yi nu yàlla jox war nañ cee takku fexe ba am ci lim boo xamante ne. at mu jot ñu di ko dajale mu doon kees koo xam ne doon lépp loo xam ne kër gi soxla na ko junjoon nañ ko fi daaw jéeg wax ne dañoo bëggoon mbooloo moo xamante ne day mat lu mat juróom juróom fukki junne la waxoon yaakaar naa bañ ko xoolee kenn ku ne six mille francs at mi bañ ko xoolee doonoon na soixante et quelques million loolu nag ñu bëgg yaatal ko ci bañ ko yemale ci doomi dongay tërbiye yi rek yaatal ko ci mbooleem dongay doomi dongay taalibi sëñ Fallu yëpp rek ñu gën a góorgóorlu te gën a takku bis bi itam doon bis boo xamante ne bu mat fonk la muy fukki fan a ñett yi nga xamante ne ci la sëñ bi mujjoon a dajeeg dong yi waxtaan a ñoom eh, ñaanal leen dénk leen eh, ñu am ci beneen tawfeex itam ndax eh, liggéey bi nga xamante ne mooy liggéey jumaa ji nga xam ne sëñ Tuubaa ne woon ku ci fas fees fees ba faaw sëñ Fallu àggale ko fii mu ko àggale ba 67 ci fukki fan ñett ci bis bi mu dajale doo ngay leen sant leen gërëm sëñ Ahmad Diouf nattale na ma ne bis boobee sëñ bi àgg na ci ne leen bu ngeen gisee bi jumaa ji matee ma dellu Mbàkke Bari googu yeesal yeesal barab ba mooy foofee ba sëñ Tuubaa di tàggoog noonu maak Cheikh mu safaa wax nañu ne am na liggéey boo xam ne bu ma gisee danañ ko liggéey eh, suñu borom foofee fa Tuubaa yéen ñaar ñi ne ku ñëw nee nañ ci fekk ko dem nee nañ ci bàyyi nee na daan leen bu noppee ne lay mel. sëñ Ahmad Diouf nee na ma sëñ Fallu nee ko bis boobu yàlla leen sëñ Touba wan jumaayi Touba na muy mel moog Cheikh Mouhamadou Moustapha kon nag bu ko liggéeyee ànd ko suñu bàyyi yi ba mu nu coleet 67 mu wëlbati ko euh, mu wëlbati ko waat woo dongay tërbiyee sant leen gërëm leen wane na loola moo tax ma yeesal bar boobee ngir wan gën ko fa sëñ bi wane woon loola ab soññee rek lay doon kon nag ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. ñoo ngi mbooloo mi fi teew ñëpp leen sant baax baax ci taxawaay daayira bi na nga gis mooy doomi dongay tërbi yi sëñ Fall yi di daayira ma fàttali bu doomi dongay tërbi yi sëñ Fall yi ñoom ñoo daje fii ngir wut seen waajur ci liggéey boobu wax na maanaam mooy way bi leen sëñ Fall boole woon ndax ñoom dem ba nekk ay mag tey mëntuñu bari léegi liggéey boobu nag wuru taxu daa war dem ca kanam bis bi moom du bis boo xam ne nag dañ ko sant yàlla bisimilahi rahmaani rahim ñu tàmbal ci bisimilahi rahmaani rahim eggale ko ci alhamdulilahi rabbil alamina di ñaanal Seex Muntaxa ma yàgg fi loolu te wér sëñ Abo moom it yàgg fi loolu te wér ci ah yàlla saa borom ba may ñu wér guñ ko mën a liggéeyal sëñ fallu Mbacke mi nga xam ne moo yoroon suñuy kilifa ñu nekkoon ci daara ji nag ñu sant yàlla bu baax a baax a baax ba ñu boolee ci njabootu Cheikh Mamadou Fadal ndax ku képp ku ci bokk kontaan nga lool te ki ci bëgg a bokk bokkuti bëgg naa bokk si ñu ngi woo soppe yi di woo ñi nga xam ne dañoo bëgg Cheikh Mamadou Fadal ñëw ci liggéey bi ñu liggéeyal sëñ Fallou la suñuy baay amoon ci daara ji suñ borom may ñu ko ba suñu sët am ko barke Cheikhul Khadim képp koo xam ne yow rek bala ngaa bala ngaa def dara rek danga ne jërëjëf sëriñ Fallou Mbacke ah kon nag maa woo bépp jigéen boo xam ne rek muy Touba muy Dakar muy Kees muy Mbacke ba war ne ñëpp ñëw ci liggéey bi Cheikh Maodo Fada bi ñàkk cee ñëw nag wóorut ku ci bokkut ku nekk say bo bokk ci liggéey bi ku ci bokkut ku nekk rek say bo nga jàq man de fu ma mën a fekk ci kaw suuf dinaa te képp ku ma gis nga bokk ci dinaa la woo te ko ma gis nga war a ñëw dinaa la woo waaw. tey ñu ngi teew fii ci kër Serigne Fallou di màggal ñi nga xam ne ñoo àndoon ak moom di liggéey ci liggéey Serigne Touba bu sell boobu mooy donga yi nga xam ne ñoo nekkoon ci daara Serigne Fallilou di tarbiyewu léegi nag euh, xam naa biñ demee ba àgg ci yenn at ci néew doole xaw a wéradi ak ñenn ñi di wàññeeku ñoo xalaatoon ni liggéeyub sëriñ bi wërta deltu ginnaaw te lu deltu ginnaaw lu nekk kanam lay dem moo tax seen njaboot gi ñëwoon sof ci ci ñoom ndax euh, ñoom jàppoon nañ seen job ay dongo yoo xam ne duñu wàcc mukk ba keroog ñu fi jóge kon nag loolu seenu njaboot rek moo ko mën a jëmmal moo tax ñu ñëw bokk ci ñun doomi dongo yi lañ dongo yi mooy ñee toog ca mbaar ma ñooy suñuy waajur ñun seeni seeni njaboot lañ doom yi soxna yi ba ci sët yi ñëpp ci lañ bokk. li ñu ko dese mooy ni leen ko sëriñ bi digale woon rek da leen a dajale woon waxtaan ñoom waxtaan ya mu waxoon ak ñoom da caa bokkoon ay ndénkaan yu leen dénkoon mu wax leen ni ginnaaw bu ngeen bàyyi ko fii ci man. na ngeen di seeteente tey dimbalante ku tane sa morom nga dimbali ko loolu nag moo indi lii moo waral biñ nosee daayira bi ñoo xam ne daayira du du ay mbooloo yu teew rek faaw ku nekk di jël ci sa alal di ca def bu ko defee ñi ñi man di jël di yóbbaale ñi nga xam ne mënut loolu moo waral ñu bi ginnaaw bu ñu taxawalee bis bi li ñuy dajalee ko si ñëw ci alal ñu koy jël di leen ko jébbal ñun suñu waajur yooyu bu ñu leen ko joxee nag ñu waxaat ne nañ leen ci taxawul bis bi ci la ñuy taxawu bis bi lu des ci alal jooju yit mi ngi delluwaat ci ñoom képp koo xam ne néew na doole wala mu nekk ci jamonoy wéradi lañ ci amuk su néew ñu yëkkati ko jox la ko jàppale la ko doonte du mën a faj say aajo it dana seral sab xol nga xam ne say doom ñoo la seet si nii daal lañ ko nii daal lañ koy defee. ndax ñun ñii dañ dikk kenn ku ci nekk di ànd ak sa waajur di ñëw ci bis bi ca bari na ñoo xam ne si nii danañ ànd ak seen i waajur te yi gisatuñ kon loolu am na solo. léegi nag kon comme que kenn ku nekk xam ne lii sa waajur amul lu ko gën a ñor kon yow li war mooy futteeku ca fexe ba bañ a mujj pusa ba mu réer ndax ñoo ñëwee sëñ waxoon na leen du ngeen alali baadoo la ëpp leen yéesu leen gimiñ dugg leen ndax ëpp gi mooy ñu ñëw fekk sëñ Fall ñëwagut yées gi mooy ñu ñëw ba dem sëñ Fall ñëwut gimiñ duggu leen mooy ñu dikk jamono te sëñ Fall ca duñ ko nangul ca dara dalul leen ci. ca leen waxee ne du leen alali baadoo la comme que duñ alali baadoo la te ñun ñii ci ñoom lañ jugee kon ñun ñii duñu alali baadoo la kon nga xam ne si amuñu lu ko gën a riis war nañ ko téyel suñu bopp ndax man mii léegi may wax sëñ Modou Guèye mii ne ko amuma benn bis bu may fàttali ko sama waajur yi yendu ko àll loolu bis bii lii doo nga ko mën a tax ci mu daje moom yendu àll ci waxuma la jëmmi bis waaye réunion bis bi sax koo jaral yendu àll kon man la ma war ca bis bi mooy futteeku waxtu wu jot nekk ci ca bañ a tàyyee bañ a geesu kon képp koo xam ne sa waajur bokk na ci biir kër gi bokk ci dongay laxasaay bokk ci donga yi xam ne ñoo àndoon ak sëñ Fallou warutoo am am noof laay war ngaa jug taxaw ngir ñu jëmbal bis bi symboliser ko ci nag bis bii bis la boo xam ne si ni mbir la moo xam ne faat na bëgg cee bokk taxu cee bokk xel mu neex du ci boole kenn ab juddu tim boolewu ci kenn pas-pas la boo xam ne yàlla suñu borom moo ko tànn boole ñu ko ñun ñii ca buñ koy boole ñun ñëpp kenn amut. kon lu nu suñ borom boole la ñu war koo téye kenn ku ci nekk rek war na ko ka téew ca bañ ko booleeg dara kon nag képp ku ci bokk ne warutoo toog sax ñu lay soñ Serigne Modou Xaban dongo yi ñu ngi lay nuyu ak njabootu dongo yi ak mbooleen sunu sang yi nga àndal ñu gunge la ci jataay bi Serigne Touba moomee nag nga xam ne moom la yàlla jagleel Serigne Falilou yàlla dogal li mu bëggoon lépp mu am ko kon bis bi nga xam ne nag ci la ñu tànnaloon jot lu ñu ngërëmam muy fukki fan ak ñett ci weer wii te keroog ba mu ñëwee mu wax ne tey de dara andiwuma lu dul seet si leen nemmiku si leen daleen leen xamal ne yéen ñëpp am ngeen ngërëmal yàlla am ngërëmal Sëriñ Tuubaa ma am sama ngërëm ma seere ko di ko jot li am murit du wàcc waaye dana ci am ñu soppi seenu liggéeyin kuñ ci sepp saw liggéey bul dellu fa nga jóge woon gàddaay dellu bokk ci ñi fi des ku ci ne na nga topp ca kamala boole loon bu la gërëmee gërëm naa la ku ci wax ajo woo wittal nga dem ci say bokk ñu xoolal la lu ci war maa koy def buñ gisul nga ñëw ma xoolal la ñuy wéy ca noona ba nëgëni bañ dem ba xalaat ne loolee mu waxoon ne na nuy seetante tey nemmi konte te ku ci tànn sa morom nga dimbali ko te ñuy fajante ay aaju ci suñu biir euh, kon war nañoo taxawal nag euh, mbooloo moo xay mii danañ ci man di bokk daje di ci fàttaliku jataay boobee ñu sosoon ko keru tàkkusaanuk bisub ñaanuk seex nombeen falilu kafe yi ñu fa doon tàngal bañ demee ba xalaat bis bii nag te gis waxtaan wi mujj a def ak nun nekkoon daa nekkoon daara Ndindi Kanji bind ko yàlla dogal mu date ko ñu jël lettre boobee ñëw won ko Cheikh Moustapha Falilou mi nga xam ne moo njëkk a wuutu sëñ Fallou te sosoon liggéey bii ba mu ko jàngee ba noppi mu ne bii biskat sëñ Fallou leen ko dencaloon dee leen ko màggal te am ci la moo tax fas nañ yéene saa su ne fulla ak fayda lañ ciy def moo jëloon loxol boppam bind aw turam ne ba ngeen ko xalaatee ci man ngeen war a njëkk a ñëw ne sëñ Fallou ma woowoon ngeen toog ma toog mu ne ñii yoway seen jëwriñ su ma la gisee naa leen gis su ma leen gisee naa la gis bind aw turam yëkkati ñaar fukki junni joxe juróom-ñaar ña àndoon ku ci ne mu yëkkati ñaari junni joxe muy cent soixante-dix mille rëdd encadré mi ngi ci carnet bi daa ko àndanu ba ci Cheikh Mouhamadou Lamine Bara su génnee fii ci mbaar mi daan yéen lu luñ leen di wax joxan jumaa ji ne seen jëfa ngi di ko ànd ak ñun ba ci Cheikh Aboul Baraka mii daaw 22 heures la ma aboo mbeng woo ne ma sëñ bee soxla ma ne ko lu mu wax mu ne mi ngi nii xaaral ma jox mu ne yéen a ngi waajal màggal gi mu ne ah mu ne kër gaa ngoogu gënuma leen fee sañ lu ngeen fi soxla ak nu ngeen ko soxlaa doxaliwuma kenn sama diggante yéen yabaluma kenn ci yéen ni ma leen bàyyee xel bàyyiwuma ko xel kenn na ngeen ma ñaanal di ko ànd ak ñoom kon loolu gën naa dalal suñu xel ñuy ñaan suñu boroom ci barket ngërëmul sëriñ Fallu ci sëriñ Touba sunu borom sàmm leen ba ngeen yàgg fi loolu te wér te su ngeen gestoo gis nu te ñu am kàttan ñu leen liggéeyal te yàlla sàmm sunu njaboot gi dongo yi ñi ci tëdd sunu borom yëkkati leen ñu ànd ak njaboot gi gunge leen ba ci kanam. nee na yu baax yëpp nee na mi ngi ci loxol seexul xadim te xam ku ne xam na kuy seex Muhammadul Faadal Mbàkke ci taxawaayam ci sëriñ bi ak mbooleem lu sëriñ bi ma a bëgg nee na bokk na ci ñi ci man ba ci jumaa ji biñ koy liggéey uh, booba oto amul wala bariwut nee na lu bari ci jumaa ji ci bokk yi la yéwéne bopp yi wala ci loxo yi waaye warukaay amutoon nee na doon daan jóge ndokk di yenu ay xeer di wenu ay suuf di wuti ndox ci ay déeg nee na ba tey jii lépp taxaw ba tey añ ji añ rekk des ji nee na bu ñàkkee fu la ñu añe ko bàyyi nu te du am màkke kon nag dañuy jàpp ni nee na kenn du nu ëppale ci añ bi ndax ñun ñii ko jëf nee na ku ne bu xëyee nee na rafetal njortam bu baax te xam ni léppay baax. nee na mi ngi sant ñëpp. nee na yat yat jeeg yox yox jëpp. nee na fër-fër ji. nee ña xamut sëñ Fallu. nee na fu ñu ko wooyee mu wuyu leen. ñun ñuy dëkk ak moom xam ko. mu jëfloonu. ku ne kam wéttalam kenn ku ne wéttalam moo la ko fàggul moo la ko fàggul ba njaboot sotti ba njaboot sosu sat ngeen defe ni liggéeyub suñ fal falilu barkeelu nee na ah, barkeel na lool ñi gën a ñi ñi gën a baax ci nit ñi ci lan bokk ci ay tànnee nit ñi lan bokk ah, nee na buñ jàppe seen bopp nan jàppe suñ bopp fanu sëriñ Fallilu teg nee na moo ni woon dun alali baadoola nee na baadoola nag kudul baadoola nee na kon kay yaay buur rek kon nag nan seentu xéewal yi te dalal xel yi te ñaanal sëñ abul baraka suñ borom yàggal ko fi lool te wéral ko te ñu ne ñun ñooy moom moomin mooy nun mooy sëñ Fallilu di Cheikh Ibra Fall te ñun ñii kat ci yoonu Cheikh Ibra Fall lañ jaar ñaq ak ñuqi ba am li ñu am kon nag ku am kilifa goo xam ni goo gu mel noonu nee na lu muy séddale kenn du la jàppale ñu ngi sant soxna yi di leen ñaanal bu baax nee na fu góor ñu taxaw kenn du nu ci man nee na ñu ngi leen di ñaanal njaboot gi barkeel. ñi amut eh, ay takk ndeer. nee na ñi amut ay takk ndeer. te am te bëgg ko bëgg ko am. te bëgg ko am. borom jox leen ko. suñ borom jox leen ko. ñi am ay takk ndeer. ñi am ay takk ndeer. duggagun ci barab. te duggagun fi barab. bu ndee ay soxna. bu ndee ay soxna. suñ borom jox leen ay borom kër yu baax. bu dee gone yi. bu dee gone yi. ñi amagul am xëy. suñ borom defal leen am xëy mu baax nee na dalal leen suñ xel bu baax te sant yàlla tey bëgg nag di séentu xéewal yi lépp na ñëpp tàllal sëñ bi sottinu amiin amiin amiin amiin ñu tukki it ñëw ak jàmm mbàkke am na ci ñoo xam ne ba nëga seen borom kër am na fukki at ci àll bi na daal di ñëw àndaalee xéewal mbàkke bis bi àttan na lépp amiin amiin amiin amiin nee na yàlla nañ ko fekk ay déwén yu bari